Alchemes, alxemes ñaar fukki fan ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat examen yi nga xamné mom lay wéccok yeen ci test jurum ben positif nañ ci jurum ben yi importé benn bi nekk contact boo xam ne suñu service yi ñoo ko doon suivre malade yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé Dakar Touba ak Ziguinchor ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ñaari fan ci weeru mars am nañu Sénégal téeméeri téeméer ak juróomi yoo xam ne détecté nañ leen ñu positif ci téeméer ak juróomikaay yooyu juróom-ñeent wër nañu ba génn juróom-ñeent fukk ak juróom benn ñoo nekk ci ci yi ñu leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi pour ñu wéyee tegtal yi nga xam ne ñoom leen di jox ñoom lañ leen di jox bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam